bisimila mbiram Ousmane Sonko ak wàccaay élection présidentielle bu 2024 mooy li yitteelati yéenekaay yi ci àllarba tey ji ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru décembre atum 2023 le quotidien journalub Madiambal Diagne bi ma nga ba tey ci bindub Ousmane Sonko ci liste électorale yi yéenekaay bi nañu ngir gàllankoor loola agent judiciaire de l'État dem na ca cour suprême yóbbu fa pourvoi démb la ko yóbbu ca bés ba mujj ca délai ba nu ko mayoon Vox Populi ne dafa ñadd boobale délai ba mu jeex tàkk talaatab démb jaa ca desoon ca la fa xëy moom agent judiciaire de dogal ba juge tribunal bu ndakaaru joxe Ousmane Racine Thione ñu neenal ko ba Ousmane Sonko kenn du ko mën a bind ci liste électorale yi critique gis ne agent judiciaire de l'état moom jusqu'au boutiste la maanaam dafay dem ba jeex ci mbiram Ousmane Sonko gi dara yitteelu ko lu dul Ousmane Sonko bu mu bokk ci élection yi sur saane waaye loola teewut Ousmane Sonko moom déposé na dossier candidature am ca conseil constitutionnel yéeni kaay bi ne constat la ca ko xañ ko ko xañee ab huissier dëxëñ parrainage yooyu la ñëppi déglu gannaaw ba ñu déposé dossier candidature yooya le soleil ne dossier ci juróom-ñaar fukk ak juróom candidature ci biléb élection élection bu pare campagne be campagne bi war a tàmbali juróomi fanweeru janvier ak ñeenti fanweeru février di becc lañu war xam ca booba procédure la tam muy ñëw ci mbiram Ousmane Sonko mi yóbbu candidature am conseil constitutionnel doonte agent judiciaire de l'état noppeegu caay mbiram candidat yépp ñu juróom-ñaari sage enquête ne farata gaa ngi doog tàmbali les choses sérieuses commence buñ sukkandikoo ci booba lépp journal bi di la témoin moom la ko jaaxal mooy candidat ya juróom fukk ñu ca baree bari yéene kaay riir doo nga leen ca dugaloon départ gaynde arrivé muus lan def coow li nu fu yëkkati yépp ak seeni fiche de parrainage yéen woon yéene kaay conseil constitutionnel moom yegguñu fa sursaane xob yu yéenekaay bi ne balay loola lépp nag faaw ñu sàkki pexe fexe daal ba ku mënta dem doo dem jëli fiche de parrainage di sonal nit ñi wutum fiche googa sax yéenekaay bi la ca kenn dut fay dara moo tax ku jóg dem jëli ba ba amul lenn lu cay gàllankoor te la ca gaañu baree bari di wut mooy fexe xool candidat bu gën a jekk gannaaw boo defee sam riir ba noppi nga dem waxtaani jeeg moom wut loo ca am la sampaw laaj ci ñooña deltu ginnaaw ci élection présidentielle bu 2024 ne lu jaadu ñu def ko fi tontu lay ñëw Thierno Alassane Sall di artu ca Walf Quotidien naan réew mi ñu baree bari jàpp nañu ko ci wutum parrain gi Ousmane Sonko mbaadu daa am beneen palang 24 heures wi leew laaj la samp ne palang booba di bot secret mbaadu Habib Sy la waral yéenekaay ba jàpp ne lu mën a nekk la mooy kàddu yi Habib Sy yëkkati woon fukki fan juróom-ñeent weeru novembre atum ne candidature am ak bu Ousmane Sonko daa lëkkaloo candidature Bassirou Diomaye Faye ak lu kenn mënta dàq yéeni kaay bi ne amul fu juróom-ñaari sages ma Mamadou Badio Camara ki ñooñam mën a jaar ba tee ko bokk moom Bassirou Diomaye Faye tribune ne ñi seen bokk leeragul kay mooy Karim Wade ak Khalifa Sall yéeni kaay bi ne du samay kàddu kàdduy mambay ñaala moom ministre ba ca boobaleb journal ma nga naan bu fekkee lan waxtaane woon ca dialogue ba ba nas ko sottiwut danoo war a woowaat ña ca bokkoon ñépp joyanti lépp lay firndeel kàddoom yooye nee na mooy commission politique ba lijjantiwul mbirum amaan ya di alamaan yañ tegoon seen te muy lu leen mën a gàllankoor la mën a gàllankoor doxalee élection présidentielle bi nu dëkkmal di Amadou Ba Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Karim mooy tirage bi nu war a def alxamis yéene kaay bi ne ñu ndaw ña nag yëf ya naa doon chance te ñoom seen bamba jaare ca maase waaye lay muccal yooyele ponkal mooy parrainage parlementaire ba nu am l'indépendant ne lépp alxamis ñaar fukki fan ak juróom-ñett weeru décembre bi lay leer ndax ca la conseil constitutionnel di amal tirage au sort xam ana ñan la ñuy njëkk a xoolal seen parrainage ak ña ca topp booba jamono ci les échos kenn ci leader topp ci ginnaaw Ousmane Sonko El Hadji Ibrahima Mbow mi doog a bokk ca ba fan ko dugal ñu leeral ko sàkku na itam dossier Ousmane Sonko bi jàll ca conseil constitutionnel waaye nag nee bu nu nax seen bopp li leer mooy état ci boppam kenn mënta wañ loxoom ba lu yoon dogal mu doxal ka les échos ne lii kàddu ñaari magistrat la yu ñu taataan seen xalaat ci tolluwaay réew meeg mbiram Ousmane Sonko ca mbir a sax magistrat ya déggoowun ca ñaar ñiy les échos seen kàddu neenu ca cappaandaw la ay coppite dong moonu ci mën a génne Ndella Madior Diouf moom génn gut ci mball gi suusaa ne retour de parquet la am démb waaye ñeenti tuuma yu diis libération ne maa leen di limal lan koy toppee jàpp leen homicide involontaire maltraitance d'enfants mise en danger de la vie d'autrui exercice illégal de la profession de médecin ouverture et exploitation d'une pouponnière sans autorisation administrative traite de personnes maanaam faat te tayoo ko bundu xataal ak toroxal xale taxit dundub doomu aadama nekk ci xortu gerte doxal liggéeyub médecin te doonoo ubbi pouponnière te amoo ca ndigal amoo ca sañ-sañ waaye it jënd ak jaayub doomu aadama yéene kaay bi ne lii ci ndoddub Ndella woon boppam docteur bay réewlee jigéen ka ko doon jàppale ci loola Cheikh Tidiane Ndiaye ne ñetti yoon jàppale na docteur Ndeela mu réewle ay jigéen ñu mucc ña muccut mooy bébé Youssou Ndour bébé Akon bébé Zuleyka Ndeela Madior Diouf bébé Jaxate ñoom ñépp journal bi nee na danoo faatu ci anam yu metti metti bébé Akon moom yéene kaay bi ne ca paan bu fees dell ak galas lanu nëbboon ab néewam bébé Madi Keñang bébé Mbay Jéy Fay 1 ak Saba 1 moom kenn xamul funne El Hadji enquêteur ca Safir FM doon liggéeyal Ndella Madior Diouf yéene kaay bi ne ca kanam enquêteur ya nangu na ne rob na ñaari liir ka ko may mu def ko ca sëgi yoof journal bi ne ñu koy wër ki waral lii lépp nag di ki wesaare vidéo Ndella Madior Diouf ba ko enquêteur ya dégloo nee na moom dégg ñu ne am na ci bébé bu nu jaayee juróom ñetti million ci xaalisu CFA leneen lu doon xew ci kër Ndella Madior Diouf googa te libération yeggeen ko mooy biberon bañ doon jox xale ya journal ba ne ndoxu robinet enquêteur ya le témoin ni ki toj kaas yi dëgg kay mooy Pape Samba Mboup ca boobaleb journal moom Pape Samba Mboup ma nga naan Amadou Ba mënta gagné élection présidentielle bi nu jëm coupe d'Afrique bi nu jëm nag xeeñul neex ca boori Everton ndax stade nee na Idrissa Gana Gueye gaañu-gaañu la amee gu jur tiitaange ku lay jaay itam gaañu-gaañoo tax ñu njort ne boobaleb kan du ca bokk Sadio Mané moom stade ne ma ngay toj Arabie Saoudite fan yi dugal dong lay def dun def lu dul ñaanal leen kendal ak jàmm dig leen daje